ngeen nekkatul ci position euh, boo xam ne da ngeen di am complexe de supériorité di am ñoo leen di xeeb ak ñoo leen xeebul il y a eu deux scrutins au mois de janvier euh, deux mille euh, deux mille vingt deux qui ont un peu semé le doute euh, sur vos capacités réelles à continuer à à à à mettre la main euh, sur le sur le sur le pouvoir aujourd'hui da ngeen nekk une coalition mu am des gens qui sont sortis de des flancs euh, de APR. ñoo xam ne bu ñuy tibb tey ci électorat wu APR la la la ñuy tibb et vous faites face à une opposition boo xam ne euh, principalement Yewwi Askan bi bu sécrété plus de six candidatures muy Bassirou Diomaye Cheikh Tidiane Dièye Habib Sy euh, Déthié Fall euh, Gakou Malick Malick Gakou bu coalition bu sécrété six candidatures tey seen suffrage yi ci suffrage yi ci seen côté la gën a mën a érodé wu te configuration bi ñu gis vingt candidats si bu deuxième tour amee amul euh, exploit lay doon te un deuxième tour l'histoire politique en tout cas du Sénégal a montré que le deuxième tour il est toujours fatal aux candidats de la majorité est-ce que du loolu moo taxoon ngeen def le tout pour le tout pour barrer la route à ces deux candidatures d'abord bu xeebuñu kenn tollu mais foo leen xeebee sax xam nga boo xeebee yaa ko yaa ko wax dama la ne ñun xeebuñu kenn dama la ne man dama wax wax dafa leer xeebuma kenn parce que olof moo koy wax ku xeeb sa yenn yi yàq sa li ci des d'accord man duma xeeb kenn mais sooy politique ki taxaw sa kanam ngay xeexal donc man tollu fu may xeebaate damay wax li ma doon ak fa ma jaar ak la ma mbëbët ak la ma yaakaar may wax ne autant euh, de yu jógee sur nos flancs c'est quatre ou cinq pas plus sur les flancs de Benno Bokk Yaakaar c'est quatre candidats pas plus sur les flancs de Askan Wi c'est beaucoup plus donc il n'y a pas de raison particulière de penser su amee luy érodé wu ça s'érode plus de d'un côté comme de l'autre campagne baa ngi ñëw suñu candidat Amadou Ba mi ngi def liggéeyam euh, am na bilan yaakaar nañu ne liggéey bi su demee dinañ ci am ndam deuxième tour man xaw ma dina am wala du am ñaari yoon la amagum Sénégal ñaari yoon. ñaar yëpp ça a été fatal pour candidat sortant ba tey c'est pas parce que euh, euh, on ne peut pas dire que deuxième tour systématiquement ça va être fatal. en tout cas l'expérience déedéet voilà déedéet parce que xam nga man euh, en ce qui me concerne. en ce qui concerne notre coalition ñun la ñuy liggéey mooy def lépp pour jàll au premier tour et loolu ñu ngi ko teg ci sénégalais yi ci xelu sénégalais yi ak ci nga xam ne ne bi suñu candidat moom lay waxante ak sénégalais yi ndax quand suñu candidat lu la ci mënti wax am na loo xam daf ko am ba pare mu di un bilan bilan bi euh, fi la nekk nit ñi ñu ngi ciy teg seen bët ci lu ñu def mu bokk ci ñu ko def su sénégalais yi ngay wax ak sénégalais bilan boobule tey ñi nga wax ñu ngi suñuy flanc ils auront quand même une difficulté euh, mooy bokk naa ci bilan bi waaye ànduma ci waa bilan bi xam nga dafay jafe dafay jafe man damay wax parce que dama naan toujours politique soo koy def da ngay mën a wax ak nit ñi man nit ñi laay waxal gis nga Boun Abdallah Dionne nit ku baax la Euh, nekk na fi premier ministre Aly Ngouille ku baax la am na fi ay responsabilité waaye tey ni ñu génnee ci parce que ni ñu bokkee woon ci bilan bi bilan bi ñoo ko bokk ak ñoom Aly Ngouille Boun Abdallah Macky Sall ak Amadou Ba bilan bi ñu Amadou Ba di présenté dañ ci bokk seen bilan la ñoom ñëpp ñoo ko bokk liggéey saxamul dara mais mais y a des aspects du bilan ñoom yu ñuy remettre eh, waaw xam nga nag waaw ba tey loolu moo tax ñu ne sénégalais yi bu leen nangu laa continuité. ba tey déedéet il y toujours gis nga euh, ñoom seen bopp euh, bëgguma discuter li ñuy wax parce que ñu ngi del dinañu ñëw ci euh, ci projet yi bilan bi mënuñu taxaw ne lii laa ci nangu nanguwuma ci lii parce que dañ ko bokk ak ñoom balaa mu doon neex ca njëlbeen la ca ndorteel la ñoom ku ci nekk taxaw. ne d'accord ma ci bilan bi di dem waaye masuñu ko wax loolu amul solo man sénégalais laay waxal dama ne sénégalais yi bilan bi benn la amul kenn werantewul ne bilan bi baax na bilan boo gis nag ci àdduna gannaaw liggéey yu yàlla amul liggéey bu mot amul ça n'existe pas Ablaye Wade liggéey na ñëpp nangu nañ ne Ablaye Wade liggéey na liggéey ba Macky Sall am na lu mu ci mottali Macky Sall liggéey na lu bëri loolee Macky Sall léegi am faaw mu am lu ñu ci mottali am na lu ci baax am na loo xam ne bi euh, safaan wala parce que dof rek mooy taxaw ni nit def na boo xam ne euh, euh, du wootewul ci diine ci affaire àdduna rek la affaire zahir du du mbirum baatin nga def zahir nga toog fukki at ak ñaar nga def ñu ne lépp baax na kenn ku la ko wax waxu day wax lu ko neex Macky Sall li mu def li li ci ëpp baax na kenn werantu ko am na loo xam ne dañ ko war a dañ ko war a jubbanti am na loo xam ne dañ ko war a dëgëral am na loo xam ne dinañu ko soppi loolu lay Amadou Ba di wax danaan li ci baax li ñoo ko bokk baax dañ koy dëgëral ñu yokk luñ ciy yokk ci li lu baax li am loolu la wax ñuy wax ne loolu suñ ko bëggee ñaar moo mën a am wa ilaa dañuy def politique boo xam ne ne bii dañuy ànd li li baax ñu continuer ko def wala ñu daaneel lépp te suñu deful ndànk ñi nga xam ne ne bi d'accord ñu ci bilan bi ñi nga xam ne dañu jàpp ne bilan bi dañ ko war a daaneel il faut ñu def attention moo di tey ñi nekk ci biir euh, parce que aussi lu ñuy wax euh, euh, muy muy Ali muy Bun ak pour man seen intérêt ñoom moo doon ñu ànd ñun ñëpp ñu xeex am fu ñuy dem ñu waxtaan parce que ñoom noonu la ñu tàmbalee aussi la ñu tàmbale mooy dañu ñëw ñun ñëpp gannaaw peut-être euh, euh, euh, kenn walla ñaar bu ñu ñëwee ñun ñëpp dañu taxaw ñu ne d'accord nañu pour am benn candidat man sama parti PLD moo ko jëkk wax ne dañu bëgg am un unique ñëpp fekkuñu ci ñëpp du dañu bëgg candidat unique mais soo bëggee candidat unique ay nit suñu àndee amul ku mën a taxaw ne man maa ci man maay waaja maa yore lépp parce que dafa am looy am sama moroom am leen du caagéen ne Amadou mooy suñu candidat que c'est le meilleur de tous no ñun ñoo ko tànn dañ ko tànn dañ ko tànnee tànneef bi ñu teg ko ci fu leer bun ñëw na ne tànn leen ma Ali ñëw na ne tànn leen ma keneen ñëw na ne tànn leen ma ñu ne ñun parce que tànneef bi dafay jafe te dafa gàtt jox nañu kàddu gi Macky président Macky pour mu tànnal ñu kenn ku ci nekk ne man la mu tànn ma jàpp ne loolu su amee suñu bëggee tànneef boobu doon tànneef bi nga xam ne day gañe faw ñu ànd ak dal xam ne xëy na ki ñu tànn gënu la xëy na ku ñu tànn mënu la xëy na ku ñu tànn gënu la jàmbaar xëy na ku ñu tànn gënu la sawar waaye faw mu am ku ñu tànn ñu nangul ko ko ba pare nag ànd ak moom déggoo ak moom ànd ak moom pour gagner ànd ak moom ëllëg pour aussi réew mi ñu gérer ko ensemble